ci ginnaaw waxtaan diggante ba xarit bu nekk ci nekk 3 kilomètres boobu léegi noonu aw tuur si ñu ci Tuubaa bi nga nekk diggante ak jumaa ji gis maximum ñu koy tuddee Tuubaa léegi nag bu fekkee da ngaa jógee Baxdaad jëm ca Fatou Seye ko Seye Seye yaa ngi jaar ci Tundu Baxdaad yaa ngi jaar di nekkal xaatam dañ ko jox wala dëkk séeréer man fenn baa ngi ci wetam même pas un kilomètre bi dégg diggante fenn dëkk séeréer foofu nag laaj sax saagaat moom seen coono sax di tàmbali seen coono sax diggante am sax Aldo Touré moo koy càmm kon nag yàlla dogal na laa yàgg bu ñëwee kooku it ba mu ko sañcee ñëw ci Serigne Saliou Serigne Saliou dafa lay noonu toog ma lay nag nañ fa ay fokk seet am fa ay gis kolo am nañ fa ay bonaat am nañ fa ay def ay jël ñaari façon am na jën boo xam ne yas lañ koy wax actuellement mën na poser ay deux kilos amee fi jën boo xam ne ñu ngi koy wax waas yooyu actuellement ma dañ ko indiwul ci ci waa mais bëgg nañ ko indi yàlla dafa dogal dafa dimbali ko xel mala mu ne da ngay jàpp ne agressif mala yëpp a yem mu ne da nga war a jàpp ne agressif mais xel bi yàlla jox doomu aadama moo tax loo gis mala boo xam ne mu fexe ba mën ko utiliser mën ko jëfandikoo te du ko sonal du sonal keneen parce que kii koo xool ñu ne la kenn wékkul ay bëñam deful dara xale yi di ko yor di ko manipuler kon pexeem doomu aadama la mu yàlla may doomu aadama même pas bukki it noonu la mel bukki ya ngi gis ne ñoo ko nàmpal ci meewu lekkaram muy mag donc xale yi ñu war a jàpp te day def jàpp jësit yi donc ci biir ndox lay nekk ci moom am na presque kenn ku si gis jësit biir biir mën nañ koo génne manipuler ci ci bopp loolu la wax ci bopp lépp rek ci xel la nekk en même temps foofu ay autorisme nga fa am nañ fa ay gis ci fokk cher la. waaw fokk cher am na fokk cher bi fokk la bi ne fokk cher yi boo leen génne woon fu mu seet Moussa nit day daw léegi nag def ci loo xam ne boo leen gisee booy kon loolu yëpp ci sa waaye nag honorable Sandaga da ciy def loxo loolu baax a baax pour donc li ci jublu mooy ferme la boo xam ni am na autorisation pour taxawal li ci dugg mooy doomu bawal la kon ku Moussa na bëgg a gis mel nii da ngay déplacé dem ba Dakar nga fay pour gis ko léegi yàlla dogal na ah bi ñu ko defee fii xam nga maa ba dem ba xalifa bi nekk xalifa sëñ Tuubaa bi nekk sëñ lool ne ko day dana rafet ndax même université bi ñu fiy def baax na ci élèves yi fi nekk fay dem def ay visite di fa nekk xam lépp mën a def doomu aadama war na ko mën a créer ba taxawal ci loo xam ne si mboolem gox boobu dañ ci mën a gis seen bopp parce que bu amee université boo xam ne élèves yi mën nañ ko jógee di paas di dem ba Dakar seeti ko am ci même pas dix kilomètres d'accord donc loolu xalaat bi daal mi ngi benn rek pour ñi bëgg a dem sorti mën na yem ci Bawol bi moom la ñu rek def fi seen sortie parce que li ñuy gis rek mën nañ koo fii tamit am naa tamit euh, am yeneen animal yoo xam animaux yoo xam ne nii euh, comme yi leen garab yi gën a mag ay gaynde ak yooyu naaw ngeen ko peut-être. yooyu yëpp ñoo koy prévoir ci fan boo gisee ubbeeguñu na tax ñu parce que dañoo bëgg boo fa duggee dina yàkkamti gis waate ku la déglu dégg parce demee ci fan lépp koy def. ba ci dëkkuwaay yi bëgg nañ fa def ay spécifications fa ñëw man fa dalloo anañ fa ay yoo xam ne jëlee nga bu ñëw fa soxlaa jën parce que naa la mën a lekk jën nga dallu lu ci ah bu bëggee gis ay autorités am na ñu ngi ji mais nag ba léegi nag dañuy jàpp ñun gis nañ ci benn appui boo xam ne si am na xam ne gis nañ ñu doon koy def pour jàpp lépp ci ay moyens ak parce que boo xam ne dem na ba mën koo jegee nii wax dëgg yàlla loolu pexe doomu la bu ki Moussa na gis nit day daw baa mu jëm ko fexeel ñoo ko yor ci ndaw ba mu toll nii mu toll loolu lépp ci entreprenariat bi pour rek dimbali loolu nga war doole a yem fi ñu dëkk la ci moom it mu ngi ci tool bi bari na fa ay moromam nga fa bii ñu indi ni bokkut ak bi indi woon ndaw indi woon nañ démb benn bu ndaw boo xam ne xale yi dañ ko doon jël di ci photo mais dafa xaw a agressif tuuti ba tax ñu delloo parce que bëgguñu ñun luy gaañ li ñu bëgg rek mooy nit am plaisir ci li ñuy mais duñ ci gaañ moo waral ñu indi ko ñu ñu ko gis. bii fan yàlla dafay dogal ni àdduna boo fi nekkee weccantee xalaat day am. bii ñu ko jëlee parc mais parc dafa am lu ñu ñun dañoo yor ay paa loolu li ñu ko la fi wax jàmm jóg amu fa donc ñun bu ñu ñun ñu fexe ba jox leen ci ñun ñu soxlaa gis ñu jox leen ci loolu mais bu ñu ko jox loolu ndaw la ñu dee dama ñu doon ay mag voilà kii moom la ñuy wax foko seer ñu koy wax mbaamaal moom it ñu tuuti la ñu woon bis ko dem nañ ba xaw a nekk ay mat nii mais day dem na ba posé ay cent kilos te day dem ba posé cent kilos pour noonu adapté nañ ko moom it ba nga xam ne xale yi mën nañu foo moom ko jox lekk One more, good one. Good. benn yow baax a ngi nii dafa soo si nga moom ni ko def nii ba mu lewet bu reggee du yàq si nga fi ne pitax yaa ngi yëg ci kaw te defu leen dara euh, ndeysaan dafa am kersa bu nit dee gis nii dina ngoo lekk yenn lekk yi bu la rek mu xaw a da ngay fexe ba lépp loo xam ne jafe nit ñi rek mu xam foog ñu ko mën di gis parce que am na ñoo xam ne dañ ciy gis seen plaisir am na ñoo xam ne ko ñoo leen gënal bukki yi am na ñoo xam ne bukki yi leen gënal wala yi noonu laa dund lii mooy xu munaat munaat mais xu la waaw mooy xu donc kii day dund ba trois cent ci maximum jàpp nañ ni deux cent mille manqué li mu manqué wu tabax yi day dem ay trois cent ba euh, quatre cent loolu bi day am bi ni tey si kii mën naa taxaw ci kawam mu doon problème léegi si baax na ci ñu xam na mu soxlaa wala ci mën a wér parce que mala yi ngi ci biir xëy na ñu ne wala ne boo nekk ci kaw gileem bi nga mën a protéger a wër fenn du am benn problème gileem di problème ñu bu ñu rejeté kenn boo yéegee rek boo leen dàq ñu jóg boo leen tëdd euh, comme li ma lay wax rek ci xelum doomu aadama ñu tàggatee ma toll nii nga man foo téye wàcce ko jël ci kaw donc sa unité wàcce wàcce ko wàcce ko am benn problème ok